ñu ngi nuyoo nuyoo boo xam ne sang bi moo ko nuyoo yàlla ca isra ak miraaj ba te moo di attaxiyaatu lillah sallallahu alayhi wa sallam wax yàlla batu nuyo yépp lillahi aji sax rek ñeel yàlla attayibaatu azzakiyaatu lillah sang bi mi ngi yéeg mi ngi nuyu yàlla nee na ko kii may jëm ndey te mu neex ko yëkkati ma may ñëw ci moom sellte gi mu am ak sellte yi nit ñi am yépp ndeke moo coppati ci sellteem jox ko ñépp kon azzakiyaatu lillah kon maa ngi jëm ci ki nga xam ne ku sell moo la sellal sang baa ngi yéeg durija ma durija min tibaaxin as tayyibaatu sang bi nee na ko ñi teey ñépp ba dal ba ku leen xool sopp leen bëgg leen seen wax teey seen toogin teey seen lépp teey ki coppati ci teeyam may ko ñooña ba ñu teey kon tayyibaat yépp ak salawat yep lillah yàlla ne beret ne ko assalamu alayka ayyuha nabi mala fay nuyo man man mi la sop ba taf la sama bop alam yajidka yatiman fa awa ay ka li nafsi mala fekkon nga nek jirim ma taf la sama bop wajadaka dalan fa hadaka mala fekkon xamuloo woon xam-xam ba di ko jàngal kenn juboo xamuloo woon jub te mosoo jubadi waaw xamuloo woon jub te mosoo jubadi kon la ma ko roof ba mu jub te jub xewagul jar naa bàyyi xel moo tax alam tëra kayfa la wax waxul alam alam ci balaaxam bu réy boobu ci xam nga lu tax mu wax ko alam tëra kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil ndekete lu tax alam tëraja mooy booba ma nga ca ndiggal abdullahi te lawlaa saalta xima baytin bihi sharufat abaauka alxurru bayna alxurbi wal ajami ku dëng ko wax waaye ki leer gi nekk da ko ne ah laa abxi siwa naami lil bayti nag rabbun sawfa yaxfasuhu am na loo xam ne ki ko moom moo koy wattu man samay géléem rek laa soxla ndekete bobu sang baangi ci ndigal abdul mutalib di gis lépp ndax amna lo xamne xale du gis da fay séen mak moy gis waaw xale du gis day séen ra'yu cheikhin xayrun min mashhadi ghulam waaw bo ñewé ci kilifa gi nga bëgg dem mu ne la bul dem nga ne ko pourtant auto yépp taxaw na ma dugg rek ka ci dess bo gisé dem nee na ra yu yëg-yëg ba mu am ba ni la bul dem xayrun min mashhadi xulaam moo gën a wóor oto yi taxaw na damay dem ndax dee xaj na ca moo yàlla ne ko nekkoo fi woon yaa ngi fi bi may alak abraha pour mu torox pour ma yëkkati la ñëw ci man yaa ngi gis lépp kon nag ñu joxante loxo maak yow ñu gàmm kon alam tara mu waxtaan ci ak moom kon asalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu loolu tax bu la xaaji duudu waxee asalaamualeykum nga wax ko wa aleykum salaam wa rahmatullah bu ci tegee wa rahmatullah nga tek ci wa barakatuhu ndax yàlla fay nuyo kon fay nuyo farata la ñu ni bu ko kenn defé wàcc na ña ca dess góor gi ne ma waye du tey it ko ko def do nga am tuyaa ba kon bu ko baye kenn kon nak assalamu alayna loolu lañu ñu war di waxante wa ala ibadillahi salihin sang bi nag li mu indi te Cheikh Al Hadj jàngal ñu ko liñ ciy wax sax dañ koy tënk ndax sang yaa ngi jóge ci barabu xalifa bi seen way jur it li leen di xaar bari na ñu nuyu kon suñu kilifa Serigne Cheikh Ahmed Tijani yal na yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam teg ko ci loxo sama wasila. sëriñ cheikh bu sëriñ Moustapha Sy Jamil ñu ngi koy nuyu bu baax nuyoo yooyu yépp dama koy teg ci loxo sama wasila sama sëriñ sama gidd di cheikh Mouhamadul Moustapha Sy Al Amin mu joxal ñu ko ñépp tabaarakallahu nuyu nag maam jaamu maam sëriñ Mor jaamu si fa tabaarakallahu ak suñu nijaay sëriñ Babacar si alxaaji Aminta ñu làmb ñëpp ak alxaaji dudu kenn nuyu alxaaji pap njaay xam nga batu bi abdihi serigne mustafa lolu ñun ñoko ko jël ba def ko batu talibé xam nga batu abdu moy nek talibé mo gën xejji asra bi abdihi bi gis nga yàlla waxul bi ruuxihi de ndax ruh du war al burah bi ruhihi wa jasadihi fil yakhazati gis nga nimu nimu brancher mu cheikh mom sayyiduna muhammad bi ruhihi asra bihi allah bi ruhihi wa jasadihi fil yakhazati yonent bi jëlaat yaxasa boobu joxaat ko cheikh ne ko yaxasatan laa manaaman ndax rañaanu yonent bi ak rañaanu Seydina Cheikh ak rañaanu beneen jaam bu ñu xamul ndax keroog bi sang bi di rañaan di dem wuy ji yàlla am na beneen jaam bu yàlla woo ci suuf recevoir leen ñoom ñaar même heure ku ne mu wax la lam lay wax kii ci kaw kii ci suuf Cheikh Hadji Malick indi na yooyu yëpp léegi nag dafa am ñett yoo xam ne dafa am muy ubudiyya ibadatu ak ubudatu biñu ci ñor nak ci rañaan bi ta Cheikh Hadji malik jàngale ko mooy ubudiyya bi xam nga yàlla bi mu rañaane dafa lacc yonent bi fi israihi wa mirajihi fa bi fa bima sharaftuka gis nga bi mu accé ba mu jox ko loxo lim ko njëkk a laaj fa sharaftuka yonent bi tontu ko seen maam tontu ko fa bi ma sharraftuka seen maam ne aa asra bihi llahu fi zakin fi zakin qad xalat min shahri mawlidi min annubuwati عمى الحب للكثار على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما عام يا رسول الله وقيل في رجب في ذلك العمل الآن سلام على المغترب الخبر زمان من أسرى بي لو تشريفا لمكنتي حتى راه مرامين أي الجسور على نبي وعلى انا اجمعين سلاما فينا دائما سري شيخ السماء من اسرابي لو تشريفا لمهنتي حتى ايه فبما شرفتك Cheikh El Hadji Malick tontu lan moo tax Cheikh El Hadji Malick tontu te tontu bi du tontu fi aalamil ashbah de fi aalamil arwaax baasahu lil aalamina li yuzhira fadla wa adla shahadata man lam yansas shahadata al qabliya boobu ca aalamul arwaax te Maodo nga fa woon Cheikh El Hadji Malick ma nga fa woon te loolu dinañ ci ñëw kon asra bihi llahu fi zakin qad xalat min shahri mawlidihi من النبوة عام الحب للخزم وقيل في رجب في ذلك العمل الآن السلام على المختار ذي القدم تشريفا لمكنته سوغا نيو كون أسرى به الله ندم في زكين وين لتخ تشريفا لمكنته حتى رأى ما رأى من آيه الجسم لول نك دينن كو فيري موم لا نيو تجي رك واخ واي لي نيو تنك moy yonent bi dafa tontu yàlla ne ko haysu nasabatni ila nafsika bil ubudiyati ndax yalla ko wax ma tan la nga nek yonent ak buur wala ma tan la nga nek yonent ak malaka munuko bayyimam ko al ubudiyya mu tan walu as lol dimension la as keroog bi wayjur bi génnee àdduna te cheikh al abdul aziz al amin toog suñu bàyyi alxaaji Maodo Malick si dabbaax di wax ci sëriñ abdu def ni keroog bi yonent bi tëlee wax seyduna aboubacar ñëwal nga nga ñu xut nga xutba mu ni duma toog ci ëkk gi mukk xanaa ma teg ci sama loxo mu ni kon jot nañu xam kan mooy sëriñ abdul al amin mu tek ci ne batu batu abdu mu ne ko serign mu ne ko serign bi sa way jur sa mam daf ne abdun zalilun gis nga bil ubudi ubudiya bi serign babakar ñëw momit ne comme Aboubacar tegul loxom ci ëkk ga man tamit duma ne abdun ubayduk haza ubayduk haza ubayduk xolal haza ubayduk aiz ubaydaka serign babakar si هذا عبيدك نبعدنا أعز عبيدك بما قد يستعز من الشرور أنت حكمك نفس فحكمك مدى تحكم ما تشاء هل من منازع فذاك غير يد بابا كردي kon baat بوبو عبد moo tax seen maam bëri lu muy wax baatu abdu خاشع وجل ذو جزع آسف يا الله يا الله فأنت حليم يا صبور لمن جفا يلا نكبت بنتبي مالك محمد فها أنا لخ بيتي دل بي مملني يلا نكوكل لرك مورس نكو عبدون عبدون لرك جئت بادي دي فينيل زلتي ترخيصم رك تخمغن ترخيصل واي نيوم سين ترخيص تي يلا لان لا, لا. li yaxfira laka allahu ma taqaddam min zambik ana bàkkaaru yonent bi ana bàkkaaru sallallahu alayhi wa sallam lan mooy bàkkaaram Cheikh El Hadj Malick jàngale na lan mooy bàkkaaru yonent bi da ngeen a am koo xam ne soo romboon ay milliards te boolewuñ te Cheikh El Hadj Malick bàyyi leen ko fa te xam ne li mu am moo ëpp lépp ci àdduna ndax dafa xam ki jafé xam wax ci mom lepp da lu wax ji bari bari kat borom daara ji daan na wax ni lo wax wax wax lo def def def bo demé ci tiir yi xam ne moo du sa morom borom fi istiftahil ahli ahlu samal samam ne bi bana ta ca rañan nga la wastabsharu min xaadimin xaadimi gis nga mag ñaa ngoog mag ñaa ngi noonu lan mooy bàkkaaru si sang bi dañu mës a xeex ñu jël óomu giléem dóor ko ko ci jë jë bi toj mu jël loxoom ba tedd ba teg ko ci jë bi deret ji fees dell mu ni ma ñii fu ñuy texeeti toj seen jëwu yonent nii يالا نكو آه ليس لك من الامر شيء نك ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم انتكا دف نن لو ري فانهم ظالمون يالا جيل واخ بوبو دنج موي دف فتح مكه ابو سفيان واخ اك موم مونيكو كو توك سا كير دوما لا لال مونيكو نيب خاجو ني سما كير تا لان مو اندي وون لولو موي دانيو راي سيدنا حمزه Seydina Muhammad ne dinaa ko fay yoo juróom-ñaar fukki bakkan yàlla dikkaat ne ko ah ma foog ne benn bakkan rek la daal di koy noté keroog nag bi muy ubbi makka bi muy ubbi makka fi Xaalid ibnul Walid jaar dafa am ñuy manifester xam nga kon yàgg nañ tere manifestation yàgg nañ tere manifestation seyduna muhammad ñew na bay dugg makka yéefari na ko mukk du am mu def demi tour bu jekk seyduna abubakar ne ko xanaa du ñun ñoo nekk ci dëgg mu ne ko ahankay ñeen newuñu ci lu dul dëgg mu ne ko ahankay yàlla yónni wala mu ne ahankay yaa waxoon dinañ dugg makka mu ne ko ndax maa la waxoon ren yàlla ne parce que marche bi autorisé wu ma ko moo tax yàlla ko wax marche bi autorisé wu ma ko Nous len ñu dellu bi mu autorisation bi na jox ko Jibril mi yor préfecture mu ne ko la masjid al haram insha Allah, ci autorisation aminina homme de tenue encadrer aminina khalid ibn Walid nak fi mu jaar dafa am manifester mu la mu ne xanaa Xaalid wax leen ko mu bàyyi rey bi ki génn yàlla fàtteloo ko wax ji mu ne ko yàlla yonent bi nee na nga rey bu baax muy daggaat di daggaat daggaat ba am vingt mu daw siwaat ñëw ñu ne ko mu ngi jeexal nit ñi mu ne waaw Xaalid yónnee naa na bàyyi kooku ñëwaat ne ko nee na nga rey muy rey di rey ba keneen ñëw ne ko sang bi ne xaa da dafa da nga tubbi mu ne ko déedéet ku fi ñëw def ma ne nee na nga rey ñu compté muy soixante-dix personnes yàlla ne ko 70 ya nga waxon ci khalid ibn Walid mom la la fayé ni légui nak waxam yoy la dajale nan ko li yaxfira lak allah ma taqaddam bakkar yu yiw yoy ñom sen bakkar dafa yiw waaw ndax sen bakkar dafa yiw motax mam Maodo ne abdun zalilun serigne babakar ñëw ba ci batu ubudiyya bobu ci rañan bi سيني بابا كاس نيو نبت بنت مام شيخ احمد التجاني نك هذا عبيدك ساس نجامغي عند الباب يقرعه وليس يعلم الا انت منحاه ويجور بي واخ من ما امنا جامانو نيكاي ويل سيرن بابا كار سي سال بي اب سيدو ويل اكسي با تي وليس يعلم نك وانت تعلم الا انت منحاه من باب سيد ولا نكو وانت تعلم سن با وكر مول هذا عبيدك عند الباب يق روى وليس يعلم إلا أنت من حاله نعمة ما زاياه بل دارت زواياه عمت مزاياه بلدارت زاويا تركي من هذا عبيدك عند الباب يقرأ وليس يعلمه إلا أنت من حافظ عمت مزاياه والدارت زواياه عمت مزاياه بل دارت زواياه kon gis nga mu ni mu ni ko wa anta taalamu mais baat biñ ci soxla rek may baatu ubayd bi mu wax mais foofu tamit respect bi respect bi ak ngëm-ngëm bi mu am moom Serigne Babacar ci Cheikh Al Hadji Malick ca baatu abdu ba moo tax mu ni def abdu mukk moo tax haza ubayduka ak aiz ubaydaka seen maam Maodo ne faxfir xam nga wàllu ubudiya mooy lan xam nga def ko ni law kaana baabuka laa yatihi zu isamin foofu jamaaliya bi la yàlla roof mu waxanteeg moom ne ko sa bunt bi su fekkee kàccoor bu mel Habib Kebe du fi taxaw bàlla ak kon dafa mel fa ma doxee كل أوزار إسك كون ستور غفور بي دانا إكزيستيتي فوفلا لي واخ دي جلالي بي دوغوكو تا ساسا بيم جوغي تي جمالي مي خاطبت ربي جلالي بي لا خطابا لا يليق بنا مي مي مي جلالي بي waxantenaak sama borom wax ju yellul ci man yàlla ne kàppet bunt bi obodiya bi dugg mu ni fax firli abdin abd bi du من الآثام حياري موتاخ موني يونت بي نينا يالا تي اسراء بي مو جوغي مكه دم بيت المقدس دجي فاك يونت ييب وتقدمت للصلاه فصلوا كلهم مقتد وانت الامام مر سبحان الذي اسرا بات بي بونتي دون دغ واي دال اسرى غودي لاي نيك nga rañaan asra bihi llahu subhana allazi asra jàng ngeen ko sarayta min haramin laylan demal ci abada burux ba badrun sara laylan yunaaji rabbahu xoolal ma loolu yooyu yëpp nag tey dañ koy tënk rek mbokk yi lam yazal mutaxaqiqan yonent bi mësul dañ bi awsaafi ubudiyatihi yonent bi melokaanu ubudiya nekk as njaam buñ koy delloowaat ci ñun mooy mbokk yi ñun ñépp nañu bokkandoo nekk ay bi ci kanamu suñu kilifa ay bi ci kanamu suñu kilifa moo tax fi aalamil arwaax fi aalamil arwaax boobu nag la cheikh alxaaji maa ne baasahu lil aalamina li yuzhira fadla ndax bu du woon yonent bi duñ xam yàlla fadla hu wa adla fadla noblesam wa adla ak onatetem am shahadata man lam yansa shahadat xable sédé bo xamné faté wu ma sédé bu ñëkk ba dé té moy fofé ci alamul arwah ba نن عبودية بوب اللي جفنكو في وفي عالم الأشباح إن الذين خالوا ربنا الله في عالم الأرواح ثم استقاموا في عالم الأشباح وفي عالم البرزق بون دمي باتا برزق عبودية بلا في يونتو وفي عرسات القيامة تخوى يوم القيامة عبودية بلا يرم من يبت. كون كان نبيا بالفعل عالما بنبوته ممدا لارواح الانبياء تو غيره لم يكن عالما بنبوته الا بعد البعثه في عالم الاشباح سيدنا الشيخ نك لول لوكو يال نتي بي جوخات خمغا يونتي بي كان نبيا بالفعل شيخ كان وليا بالفعل محمد عالما بنبوته شيخ عالما بولايته محمد ممدا لأرواح الأنبياء شيخ ممدا لأرواح الأولياء وغيره كذل محمد لم يكن من النك عالما دخم بنبوته نبوام إلا بعد البحث لدل يال ينكو وغيره كذل شيخ لم يكن دونك عالما دخم بولايته ولايام إلا بعد النزول في عالم الأشباح moo tax cheikh na ruuxi wa ruuxuhu hëkkaza ruuxu tumiddul anbiya wa ruuxi tumiddul awliya min al azal ilal booba nag ca shahaadata man lam yensaba ca iraaj ba ca mihraaj ba isra wal mihraaj ba fa la sëñ Babacar fekkee moo tax mu ni loolu mu wax ni ruuxi wa ruuxuhu hëkkaza sëñ Babacar ne dëgg la ndax premier wayu innal manaahi la xam nga ban la ban la ban way la sëñ Babacar njëkk a bind ci ci innal manaahi la mag ñi dañuy bind sëriñ bi dañuy bind ci kaw ci ca kaw soog a bind ci suuf way bi mu njëkk bind ci xasida bi mooy mazat mazatara min rijalillahi kullihimi wa huwa mumit mooy dan bii li arwaahil anbiya mumit dan li arwaahil awliya kon ruuxi wa ruuhuhu hëkkasa moom rañaan nga da koo fekke moo tax moom ah min rijalillahi kullihimi wa huwa al mumiddu bihim wa nuuru yaxsha motax ni yonent bi rawé ñëpp dafa jël lépp jox ko cheikh mu rawé ko ñëpp waxon na len ni moy sen patron ta du dañ nak di nek sen patron buñ la laajé cheikh salal la lan ngay wax pap malik cheikh salal sayyidina cheikh Ahmed Tidiane salal la légui est ce que nit mën naa bokk ak sëriñam serigne wa cheikhu ahmad atijaan fa man yulaazimu bi ak muridul xarmi cheikhi xolal bu seydina cheikh nekkee sëriñu babacar sëriñ babacar si nan la mën a nekke sëriñu xabib kebe moo tax nañ ko xooliwaat kon kon ñu tënke ko rek lan moo ko yóbbu woon nag gis nga alburaax alburaax yi dañu bari alburaax yi dañu bëri de du benn alburaax mukk yàllaa ko wax ni ko jibril demal ca alburaax ya nga tànnal ma ca ku jëli sang bi mu ñëw fekk alburaax yépp di lekk ngooñ yëg nga loolu ngooñu leer benn alburaax bi lekkul ngooñ di jooy jibril ne ko lu tax lekkoo ngooñ ngay jooy mu ne ko dëmm yëg sang bi mujju ci jamono yàlla yónni nako sama xel ne ci mom muniko kon ya am chance dem moo ki xol xool kilifaam di joy nga ni ko dangaa naa fekk xawma loy joy may ñu jam lu mu yëg ba joy yego ko in lam tazukh bo masul fa salli man zaaxa jàmmalal ña لو ما الخلاف فرج جل على نبي ولي أجمعين سلام ربنا دائما عام سن لخطي من رفيق الروح في ست فتاحي آلي سما البيبان تبشر من قدمي فامننا على نبي ولي أجمعين سلام ربنا دائما ما فرم داري على البراق سرى في المنتهى لو ما جاء الخلاف فراجع جل كتبه motax li borom dara di waxon rek lo wax wax lo def def bo demé ci téré yi xamna Cheikh El malik du sa morom gis nga faraaja jul la kut bihim ñaata téré le cité ci khilas ñaata téré 365 livres cité nako ci kifayatul raahidin 365 تيري تا نيتي تيري اكزيستي رك امتي فان لا شال حاج مالك نيكون با جيل تيري في في سرور الغنى عن كل مرضعة دمال تي كفايه الراغبين تي غاي خامي شال حاج مالك بالله الذي لا اله الا هو دا فا باكول واي والله كان يمكو تي جاتو والله والكتاب العظيم bu dee mandu moo gën a mandu bu dee civilisé bu dee jaamu yàlla ndax waxoon na benn njaboot bu bañoon a dem tool mu ñëw teg ko loxo ne ko fii ba sàngam gis nga ma ku fi ku ma fi rawa mu ne ko déedéet gis nga ku ma fi a teg sa tànkam ci sunna mu ko déedéet gis nga ma ku ma fi gën a def li ko yàlla sant mu ne ko déedéet mu ne ko kon demal toog moo tax Cheikh Alhaaji Malick foofu rek la tënkee oustaz على البراخ سرا في المنتهى منتهى بنك دغال شيخ الحاج مالك نينا يكنا تي البراخ مي في المنتهى اي منتهى البراخ لا دي اه خولي وات لين كو براخ فن لا يم البراخ فن لا يم واقعي سيدتي المنتهى سيدتي المنتهى لا تدو واقعي لكن البراخ نك دفع أم فمو يم خمغ رخا فوق البراخ إلى السماء الخلق إلى مودني رقى فوق البراق إلى مودني ودان الملائك أيدي مودني وفي الإسراء قالوا خير خصل جسنا الله رأى المولى فقد تفقير ديني أرأى فوق البراق إلى السماء ودان له الملائكة أن يديني kon nee na alburax dafa am fu mu yem xam nga tax burax am fu mu yem Cheikh Hadji Malick jàngalewaat ne ñu dem ba mu yàgg Seyduna Jibril am fu mu yem te Seyduna Muhammad amul fu mu yem ndax Cheikh Hadji Malick nee na alburax alburax dañ koy solal essence te du dagg assurance du dagg carte grise mu ni jibril jibril du sol du sol essence mais dañ koy laaj carte grise moo tax ñoom ñëpp mu am fu moo doon loolu lay wax alal buraaxi sara fil muntaha yan homme de tenue ñoo arrêté ñoo arrêté al buraax ne ko fii nga mën a yem ñan ñoo arrêté jibril ni ko fii nga mën a yem te yonent bi nag plein la am duñ ko laaj assurance duñ ko laaj carte grise moo tax inda sidratil muntaha mais fil muntaha ñoom fa ñu yam la mais inda sidratil muntaha yonent bi la moo tax samaam ne raxa fawqal buraaxi ila samaa'i ila samaa'i ba fa buraax yemee Cheikh Alhaaji Mali ne fa la plein wam jeexee bi plein bi jeexee jibril dem ak moom moo tax mu ne waddaana lahul malaayiku ay ataahul malaayiku ay ya diini topp nañ ko bu mu ciy topp di ko liggéeyal firiwul jege de waddaana déedéet waddaana ay ataahu الملائكه اي طاعه وخدمه ليغيال نانكو وفي الاسراء قالوا غير هزل خم نغا ماك موتول نش غيس نغا موتاخ ماك موتول نش الحاج ماينا غير هزل نيت ني جوغي با كاول لك ني جوغي با دكار سيرين سي توك با سون نغا واخ ني لي ني ديف بيدا لا مودن غير هزل تو بيدا دي والله خم نغا يغول وني بون لا واخي لي غاي ديف بيدا danga nga donn kuñ ko waxoon xamoo ni la Serigne Cheikh waxoon waa kaw ñoo njëkk a opposé bi ndax noon ya ca kaw ñoo ñooy patron iblis iblis seen surga la yàlla ne dinaa bind yonent bi woo ko mu ñëw ci man ñu ne ko boo bindee ku ñu gën ñu song la boo gindee bindee ku ñu gën ñu indi ko fii ñu song la song ko yàlla bind ko moo tax Serigne Cheikh waxoon ne espace intermédiaire yëpp def nañ fa affiche yonent bi pour wax ne dof nga wa in yakaadu lazina kafaru la yaslixuunaka bi absarihim lamma samiu lamma samiu azzikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa zikr lil alamin محمدا في علمه فالعلم فيه خسارة وملام تحت بنور جمالك يا من هو خلى هو ما منتهى السقرات والملأ الأولى تبعوه إلا غربة فحمام وكذاك أفلاطون في آرائي من نقد حرره ولا الإبرام من لم يعد محمدا في علمه فالعلم فيه خسائر وملام صلى عليه الله كل دقيقة وعلى الأولى صلوا عليه وقاموا كي موي بوربو أمو البالما مثلك الأمراء أنت أمير في الحكم أو في شورة الإهرام من لم يعد محمدا يو يو يو في علمه فالعلم فيه خسارة وملام خنا نيو جيخال في رك حاج دودو شي الحاج مالك نانا تا بيس بو نيك نيو ديغ بروم دارج دان كو دان دان واخ دان دان دان كو توج موني دي توج سراي بآدم مرة عيسى يوسف وقنوخ ثم هارون موسى والأب الرحيم mais fiñ ci fiñ ci ñor ci Cheikh El Hadji Malick mooy wa kaana yamuruhu Moussa rujua ila arrahmani mustasqilan xamlal hudal karimi Cheikh El Hadji Malick nee na li mu yare nag njabootam rek la ñuy tënk foofu ci wax ji mooy Cheikh El Hadji Malick moo yar njabootam piir ci julli ak jàpp ak sellal Cheikh El Hadji moo yar njabootam piir laa wax la al amin waxoon ni ah ëtt yépp nag bagaanu meew ya xonq na ba mu des bu kër Cheikh El ndax kat nekk na ci njaar ne roy ci yonent bi di ñuy bay di bay ba ñu noddu kenn julli jiwul mu génn foog ne defar nañ sàppa yi rek ndekete nit ñaa ngi bay rek mu ni lu xew bàyyi mbër nee na ba mu lu xew dafa mel ne écho mu ne ma 15 kilomètres dégg nañ ko ñu daw wut si ko mun bu ma kenn jegee dem leen jàppi waaw mu ni génn leen sama tool la wax maam Mor jaamu nee na mu julli ba pare rek sëlmal ne na fi tool bi yam ndax danga waxoon nañu jaamu yàlla kiin mënta jaamu yàlla te jàngoo ñu ne nañu wut daara te kiin mënta jàng jàng te lekkoo ñu ne nañ wut tool ngeen bëgg a jël troisième position Maodo def ko première position yàlla na fi yam tey wa taarika aw xaatil li xidmati cheikh yi ka aabidi asnaamin bi duuni mira mu ne yow waxuma ki bàyyi julli mais waxtu julli yi rek nga koy rate ka aabidi asnaam seen maam nee na yàgg ñi doon jaamu xërëm yéen a yam bi duuni mira ci lu dul werente hëli cheikhu ala rutbatan ndax serigne dafa gëna mag màgg daraja li nabiina suñu yonent bi ñu sol luñ solul kenn fa jaahid salaatul khawfi ghayru khafai muy xex ba pare yàlla ne ko daggal def ko ñaari xaj nga jita ñi ben ñu àggale sëlmal jëli ngànnaay ñom ñu ñëw nga ak ñom seen ben ñom ñu àggale khuzu hisrakum ngeen songiwaat Maodo ne li am ngeen koy bàyyi wa tax alaaji Malik si neena sayyiduna musa moko moo ne demal nga delu ci ca rañaan nga seen mam neena mu dem mu ni ko man juróomi yonent yàlla musa Cheikh El malik Malick nee daf ni yonent yàlla Muhammad man ñaari julli rek lañ ma joxoon te sama xeet gën a dëgër sa xeet gën leen a wér gën gudd fan te ñaar ya daawuñu ko matal demal mu dem yàlla wàññi mu ñëwaat Cheikh Alhaji Malick nee mu dem yàlla waaw lii ba muy am foofu Cheikh Alhaji Malick nekkoon mooy shahadata man lam yansa shahadata ba xabliyan yàlla bàyyiwul ñëpp gëmmu am na ñu doon xool Seydina Ali nee na alamul arwaax mi ngi mel na tey ci man fàttewuma ko Seydina Ali waaw ba ko Jibril ne ana Jibril comme yaa fi raw mu ne ko xool naa ci kaw gisuma ko xool ci suuf gisuma ko est-ce que du yow ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha nee na muy wàññilu di wàññilu xam nga wasaaba mustanqisan lil xam si boobu rek fa la ñuy tëje wax ji lil xam si summa xadaa mustaxiyan xoolal seen maam lu mu bind da koo jëfe lu mu bind jëfe na ko Cheikh El Hadji Malick bëgg al amin laa dégg mu ni Maodo bëggul woon ku koy soññ moo tax si si boo leen soññee rek ju mere la waaw boo leen soññee soññaal la rek waxee ah, waxuma la woon ni dinaa ko def ah ah waaye yow bàyyi ma way xolal loolu waaye xolo seen maam ni mu leen mustaxiyan ni mu leen yarewaat ci kersa boo ku ci toog sa kanamu mag rek da ngay mel ne ku toog ci kanamu Cheikh El malik Malick mais wa tilka xamsu faridatin boobu la ñuy tëjee yakunu laha sawaabu xamsiina fi ixlaasi muxtadimi seen maam nee na juróom fukki julli yooyu xam nga juróom fukki julli yi mi ngi waye salli ala sajidin bi xam nga taysiir wayewu ko ci suuf ci hadratul ilaahiya la ko waye motax ñu may ko terrain mardi ñu may ko terrain tay ci samedi bi tay ci samedi bi Cheikh Hadji malik gam wara nek mercredi mu wo aduna bi yep na dal ci len ci man ci R plus 4 bi samedi dimanche lundi mardi mercredi mu pare moy zit zid taysiir yallaahu nazma darari xamna bopam boppam Cheikh Hadji malik ma ni nit mënuñu laa may samedi terrain tey ci Tiwaawan nga am fitu <clears throat> wax ñëpp R plus 4 bu karo yi pare lépp pare fa laay dale <clears throat> Cheikh Al Hadji Malick nag dafa ni bërit rek yàlla xamal ne lu mu dugg yàlla may ko ko moo tax wasilatul munaa la ko waxee su ngeen bëggee àgg fa ngeen jëm teye leen lii Serigne Moustapha bu ñu ko téye tey siir la ta wasilatul muna moy talé sa auto Thiès wasilatul muna top ci talibi pour set ci Serigne Cheikh Ahmed Tijani ak Serigne mustapha waaw faf nak nga ñëw EDK di jël essence Serigne mustapha di jël essence gor gi di jël essence Maodo tay sire ngi bis bo dé jàng tay siir ni lay démé dootoo demati da lay fekk ci motax tax mu ne pat alhamdulilahi ba pare fofu dafa garaaw ala kulli xaalin la de. ma siburu ma febar ma dele ma yakule lépp ala kulli hal alhamdullilah bu firi wal alhamdullilah simple ni de da ngeen defane modo da ci bok billahi bokku ci motax nak modo neena watil ka khamsu faridatin xamsu mustafa juromi julli yi yakunu laha sawabu khamsina mais important wul ci modo julli bi de yeug nga lolu mais ikhlas bi mo importance ci mom selal gi lolu nak la sen mam wax ne ñun nañu bokkandoo sellal suñu gamu dégg ngeen nañu bokkandoo sellal suñu jaamu nañu bokkandoo sellal li Cheikh Alhaaji malik sellal loolu dal lañ doon indi ta sax lañ bindoon waxuñu ko waye nak euh bind lépp bëgg ko wax nak fala alku tayam déedéet li bind yépp dina ko wax samay kanam kilifa fala ñak taalibe yam ubudiyya nak ku koy waxtana dang koy jëfé te moy ubudiyya as ndiam as taalibe as talibe ci kanamu ay kilifam kon xëyra haslin kon gàmmu du bidaa dégg naa suñu nijaay ju baax ji sànq ñu may tegal waxtaanam Pam Maxtar Kebe mu ne ñun dañuy gàmmu de dañuy gàmmu waaw ñun tamit dañuy gàmmu xam nga lan mooy bidaa sëñ Moustapha bidaa nee nañ lu fi yonent bi bàyyiwul duudu maa ngi ñaanal ahlul ñi wax ñi wax bidaa ñoom kañ leen gane àdduna ginnaaw yonent bi comme ñoom ay bidaa lañ yàlla na leen yàlla def sunna wasalaamu aleykum wa rahmatullahi